Sall bu jubbo maintenant ba ñu paree ci loolu nag. ñu attaqué Amadou Ba. Amadou Ba ah, mu attaqué Amadou Ba. attaque yu mu attaqué Amadou Ba ndax dëgg yàlla jàpp naa ne lu mu wax Amadou Ba rek war na ko wax boppam parce que bu dee Amadou Ba dafa am alal effectivement les corps yi ñu tuddee inspecteur impôt et domaine ñoom ñëpp dañoo am alal mu am benn pàcc bu ñuy. benn buñaa bu ñu leen di jox. bu ñu dul jox benn fonctionnaire. d'accord non Pape Mayma. waaw Macky Sall bu mu ñëwee. Hmm. da ko bëggoon dindi Ousmane Sonko moo xeex ne buñaa yooyu du tey buñaa yooyu moom da cee am ba am ci kër ca saxlawul sax mu sàcc buñaa yooyu nekkul justice sociale. Hmm. dafa nekk lu ñu leen di paacoo la bu ñu leen di defal légaliser ko loo xam ne benn sénégalais ci ànd. moom daf ko xeex bu mu nekkee syndicat bi ne loolu bu ñaa boobu kenn du ko dindi bu ñaa boobu moo tax Amadou Ba comme mooy seen maître moo leen ci jiitu occuper toutes les fonctions impôts et domaines nekk fa directeur général nekk directeur général mais moo tax mu ëppale ko bu ñaa moo tax moom mu mën a am bu ñaa ba am cité kër góor gi kër d'accord donc il faut que les gens <laughs> respectent non pas ma daaneel il faut que les gens respectent les Sénégalais mm. Amadou Ba naam il a de l'argent Ousmane Ba il a de l'argent d'accord Ousmane Sonko il a de l'argent oui. man Ousmane Sonko 2002 la liggéey 2002 laa liggéey cité kër góor gi terrain lu mu dee dee dina fa jar cent millions mais ñu waxtaan waxtaan wax dëgg ca dinaa si ñëw donc il oui. faut pas ñuy jël di personnaliser le débat di attaquer Amadou Ba pour wax ne dafa riche Amadou Ba. il est riche Ousmane Sonko est riche comme Crésus. dagal ma foofu comme Crésus maa ngi ñëwaat nañu ñëw ci programme te bu ñu duggee ci programme dinaa la wan ne. non seulement seen candidat amul jaar-jaar. dinaa ci ñëw CV am benn ligne la. dinaa ci ñëw inspecteur des dinaa ci ñëw alors euh, Cheikh Oumar Talla est-ce que même perception nga am ci ne discours Ousmane Sonko dafa évoluer ci bi nga ko dégloo de bout en ak même question yi nga xamante ne taskatu xibaar indi nañ ko globalement loo ci loo ci jàngee. ko déglu si yenn extrait pour pour xool. Hmm. et c' est normal Ousmane Sonko d'avant ak léegi day wute nag. waaw ah. il faut il mu wute non seulement contexte yi du benn parce que discours bu ne il faut placer ça dans un contexte. Mmh. ensuite les gens attendaient sa sa sortie abord bële paase def nañ émission. ma ne la hmm. Ousmane Sonko génn Diomaye génn. loolu pënd mu wuri la mbàccum gerte la. Hmm. une libération boo xam ne dafa ànd ak euphorie boobu yëpp gars yi di ko xaar Madiambal avait annoncé la veille les gens sont allés là-bas le lendemain gis euh, ci dëkk bi yëpp mu mu am effervescence boobu. ba ci mm. guddi gi. Mm. ngay laajte sax ñu ne la mu ngi def tournée donc mu mu créer événement boo xamante ni dafa cristalliser donc les gens s'attendaient à sa sortie bu génnee lan la war a wax. Mm. y a eu beaucoup de question que les gens. Ouais, se sont digganteem ak Diomaye et puis euh, mu ñëw pour apporter des réponses euh, ak li ko génne li ma li ma njëkk remarqué d'abord maturité mm. mënul bañ am maturité parce que ku jaar fi mu jaar am ci ay leçons yu mu téere am ci yu mu ci jàngat euh, les coups qu'il a reçus les gens qui l'ont soutenu ça il avait besoin de faire tout ce récit peut-être lu duuf ci nag bi xajul ci cin li maintenant maintenant stratégie sur le plan politique li mu njëkk remarqué mooy d'abord générosité politique la am. Hmm. c'est pas donné à tout le monde. Hmm. parce que politique dafa fiir benn place la ku nekk benn place bi nga soxla. quand quelqu'un dit euh, parce que bokkuma rek war nañu reporter war war nañu pousse donc ça d'abord il faut faire preuve de générosité politique générosité politique mooy yaa bay tool bi yépp daanaka mais nga fas yéene jël tool bi jox ko keneen donc euh, pour wane ni que c'est pas sa personne mais l'objectif qu'ils avaient mis en place euh, le projet qu'il avait mis en place donc ça c'est la première remarque l'autre remarque Ousmane Sonko est très intelligent sur le plan politique oui Macky nekkatul suñu adversaire oui il, change le curseur déplace ko carrément bien parce que Amadou Ba Ousmane deful leneen politique la nekk hmm. bu njëkk ba Ousmane la Gatsa Gatsa Sonko Macky Sall Sonko mais Macky n'est plus candidat Macky a un candidat moment bi ngeen di toog fii di wax Amadou Ba mu ngi ay xayra laawo ay añaam mu ngi tourné mu ngi déplacé wu léegi est-ce que da ngeen di topp di wax Macky Macky Macky Macky Macky Macky n'est pas dans cette élection donc Ousmane Sonko a été très politique automatiquement il est d'attaque. il change le curseur automatiquement il est d'attaque parce que moment bi mu koy attaqué sax si moment boobu la gars yi sénégalais di commencé Amadou waxul de. Amadou yaru na de. Mm. ah Macky ngi tooj ñoo ngi koy xeex xam nga benn genre image bu mu commencé am donc Sonko woowu c'est c'est très logique il va d'attaque il va d'attaque ou parce que à une semaine de l'élection il faut que Sonko attaque Amadou. mooy li ma la doon wax donc Sonko a été très dans sa logique politique il ne il ne courage plus le faire avec Macky Sall maintenant l'adversaire principal c'est Amadou Ba. mais justement ñu fay dugal nii parce que dafa am lu mu jubóog moom moo tax mu déplacer curseur bi. non non non cest à pour man euh, ay nit du ñu ñàkk ñu am ay il faut tamit que parfois ñu placer les relations humaines c'est les relations humaines. Mmh. la chose politique c'est la chose politique. Mmh. Euh, moi j'ai vu une vidéo où Ba. Amadou Ba sama raq la séq nañ lu ñu liggéey Amadou Ba a dit du bien de Sonko comme Sonko a dit du bien de Amadou Ba. Hmm. maintenant tey ce n'est plus Amadou Ba patron wala xarit wala non ils sont sur la chaine politique c'est des coups moo tax automatiquement quand Sonko a donné des coups politiques. Amadou de Amadou a riposté. par un communiqué da minimiser. non minimiser wul c'est c'est des ah. c'est des réponses très politiques qu'ils ont tirées dans la réponse ils disent que Sonko. tàmm nga def diffamation moo la yóbbuwoon bi nga génnaatee xasaan nga ñu. Hmm. donc là le curseur s'est déplacé maintenant ce n'est plus donc c'est stratégique que Sonko vienne. Hmm. qui s'attaque à Amadou Ba ça c'est de la chose politique beneen bi. Hmm. Euh, ak noo ko mën a woowee. waxtaan am na. te wax na ko it. te na ko. et puis. léegi wax yëpp mooy en contrepartie. man sama waaw ah, léegi en contrepartie. Sonko ci li mu wax. ñetti points yi ñu. li ñu tegoon ci table li ñu ci <laughs> àndu ci ci benn. loolu mooy loolu ci li mu wax hmm. mais tey am na fu ñu toll foo xamante ni jamonoy xeex-xeex am na am na jamono boo xam ne du xeex am na jamono boo xamante ni intelligence stratégique moo la koy ñor et réussi ce coup aujourd'hui là où il réussi tey génn na ci kaso bi génn na ci kaso bi moom am na candidat on a pacifié sur le plan génn nañu. maintenant maintenant sama sama sama aaya sorewul sama jàng sorewul ndax ay imam laa mais en tout cas. Eh. ce qu'il faudra retenir. Hmm. mooy lii ñu mujjee lañ waroon a njëkk. njëkkee muy Macky Sall muy Sonko yoo hmm. le plus important tey mooy qu'on puisse permettre aux Sénégalais ñu mën a tànn dans la stabilité maintenant yooyu yëpp nag su amee. Hmm. maa ngi tooñ sama benn xarit man ne ko Youssou Ndour dafay woy bu ne xëy baax yombul waaye dëkk si moo jaxe mm-hmm. Macky daa dem ba année bi di waaj jeex mandat bi di waaj jeex. baax mu baax baax bu garaaw. <laughs> comprendre nga su ma waxee baax bu garaaw bi euh, waxuma ni ku baax la d'accord mais c'est-à-dire bi Macky ñëw dafa ñëw si confrontation politique. Macky est venu pour croiser le fer. Macky c'est c'est un guerrier qui était là pour croiser le fer. à la limite c'est maintenant qu'il a compris que. croiser le fer ne sert à rien donc pour moi le plus important qu'on retrouve c'est stabilité c'est stabilité c'est important tey li Sonko mën ñu bëri mënuñu ko. mooy générosité ci wàllu. non cest yow yaa xeex xeex bi yaa fayet fayet bi yaa yaa yaa jiite mbir mi mais bu fekkoon dafa am égoïsme danaan. Mhm. c'est mois ou c'est rien c'est mois ou c'est rien. mais defu ko. donc mais defu ko donc pour man. générosité absence de générosité politique boobu dafa feeñ si suñu classe politique et d'ailleurs absence de générosité politique boobu moo dal waa APR fan yi d'accord la plupart ñi xam ne dañuy dal ci Amadou Ba c'est parce que amuñu générosité politique yéen nag moo ma doon nekk am na benn profil bi nekk na daa nga gis ñii di siisu naan non du ma ko campagne mooy ñàkk laa biir boobu te amuñu raison léegi ñàkk laa biir boobu nag di nga yàqal waa ji foog ni moom nga yàqal ba yàqalaale sa bopp d'accord alors Cheikh Thiam est-ce que même perception nga am ba tey ma des ci posture Ousmane Sonko démb ci ni mu waxee. mu ci libération Sonko euh, moom ci waxam. da nga ci déggee dama bëgg a dellu ginnaaw jëm su nekkente ni may nga ma occasion bi parce que maa ngi doog a toog ci télé bu toll ci envergure bi war cee mën a wax ah, bi mooy première télé nag Sénégal waaw looloo tax kon moom war cee ma war a mën a xóotal tuuti sama analyse man dégg euh, bokkuma ak ñoom gis-gis ñoom ñoom ñett ñi jot a wax ñëpp hmm. man gis-gis bi ma mooy gis-gisu politique gu Afrique dañuy fowee askanu Afrique ndonte ñu ngi ñuy jël di ñu dóor ci tubaab yi mais ñoom li ñuy def sax moo yées li ñu tubaab yi di def damay génn tuuti Sénégal comme j'ai la malchance de ma teel a emprunter aventure dans ma vie j'ai sillonné trente cinq trente neuf pays d'Afrique bu ci nekk mu am histoire yu mu fa dund y compris ay amnistie ak lu ko waral hmm. en 2008 damaa nekkoon ci benn réew bu ñuy wax Tchad am ko ñuy wax Mamadou Nour président Déby jarbaatam la mbokkam la mu jo nekkoon France gisul boppam ci réew bi mu dem ci Maki bi Maki mooy entre ñaari réew Soudan ak Tchad day am benn espace boo xam ni kenn du ko contrôler ci ñaari état yi rebelle bi nga xam ni moo bëgg jël benn réew day dem ci Maki bi daal di woo ñi frustré ci réew mi mu def tentative de recrutement de rejoindre le Maki ni leen waa ñëw leen fekk ma ci Macky bi président Déby ni mu téye réew mi baaxul moom ak nguuram ak njabootam ñooy nguur di ñu bàyyi frustré yi daw fekk ko ci biir Macky bi bu ko bu mele noonu bu dee réewum Tchad France la àndal France ko colonisé frustré bi kii woo frustré yi day daal di def appel à l'aide su ko defee yaa ma gën a xam géopolitique Russie réagit ak yeneen orthodoxe yi nga xam ne am na leneen lu ñu nar fekk ko ci Macky bi daal di koy jàppale dooleel ko jox koy arme mu dox jëm N'Djamena président Déby aussi réunir troubam force gouvernementale ñu doxante muy lu ma fekkee ndax dama ko assister ñu jàmmaarloo ay fan il y a eu plus de 2000 morts loolu 2008 la ba ñu fa jógee ñaari at mu fekk ma Abidjan di 2010 hmm. ci diggante Roland Gbagbo ak Alassane Dramane Ouattara mu am presque deux mille cinq 2500 morts bañ ca jógee 2014 15 ci période adversité wu Cellou Dalein Diallo ak Alpha Condé si seen diggante juróom-benni at juróom-ñaari at yi ñu ci adversité wu politique ñu rey ci peut-être junneeg lu topp ci ay Guinéens mu ñëw Sénégal ci bi ma fekkee guñ ci histoire du hmm. diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall rey nañ juróom-ñaar fukki xale ñoom ñaar.